bon canaar maal bi ma téye nii mooy dina baax dina baax nekk euh, doomu tax ci rib nekk setu Grand Rane euh, nekk fii ci bergerie Mame Doumbé fay âgé de 28 mois euh, papaam nekk maal boo xam vraiment kenn dootu ko présenté ci histoire éleveur u Sénégal donc mu nekk maal boo vraiment fi la juddoo man maa ko juddu la Euh, dama recruté woon yaayam suñu benn grand bu ñu wax Ndiame fa ca Thiès borom bergerie maam maam Kumba Gueye moom moo ma jaayoon yaayam. dama gënal la ko ki mooy seen taw ma mooy Refan Refan âgé mois euh, Refan moo nekk nii nekk doomu du gaynde yaayam nekk benn euh, doomu tax ci rëb voilà mu ngi noonu. xar bu bu bu am wér la xar bu ma noppal xar boo xam te ne rien à approcher voilà mu ngi noonu. femelle bi ma téye ki mooy Miss Refan pourquoi Miss Réfane parce que daa nekk xar boo xam te ne vraiment euh, man damaa gëm sama dëkk ba lu ma am dama koy indi sama dëkk bi ma ko recruté moom ma ñëw tuddee ko Miss Réfane Miss Réfane nekk xar boo xam te vraiment xar bu barkel la def na ci berger bi ab production bu extraordinaire voilà mu ngi ci quatre portes voilà mu ngi noonu noonu la demee nekk fii ci bergerie Mame Doumbé fay mu nekk xar bu xar bu xar bu xar bu xar bu extraordinaire daal voilà mu ngi noonu kii mooy King Baba King Baba nekk doomu reefan euh, nekk set ci ci dina baax damaa jël benn doomu dina baax bu góor bu jigéen boole ko ku Réfane mu wàccee King mu wàccee King Baba mi. King Baba mi nekk relève boo xam ne vraiment yakaar naa muy nekk relève bu bergerie bi voilà mu ngi noonu dama jël benn doomu dina baax sélectionné ko ak euh, doomu Réfane bi mu gën a King Baba mi. mbote bi euh, canaar mbote bi. mbote bi maa ngi ko tuddee junior junior nekk doomu dina baax damaa jël benn doomu laa njaay bu jigéen boole kook dina baax mu génnee junior mi junior bi boo ko xoolee mu ngi ci à près ay huit jours huit jours la mu nekk euh, mbote bu ma neex mbote boo bi mu juddoo dama ne vraiment mal juddu na fii ci bergerie bi voilà mu ngi noonu xar yi daal mu ngi nii voilà mu ngi noonu boo xoolee ñaari maal yi ñoo nekk ci ci bergerie bi kii mooy dina baax nekk doomu tax ci rek setu grand ran kii mooy reefan nekk doomu du gaynde nekk doomu njame njame doomu du gaynde du gaynde nekk doomu doomu doomu doomu gaynde voilà mu ngi noonu actuellement ñaari maal yi ñoo ne ci bergerie bi may remercier sama tooma moo nekk ni kenn demul mu des parce que bergerie bu amee su accès fi rek bokk te ñi ñi ko fi andi wala mu ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk ñu topp ci Refane TV ñu am mbégte kontaan bu baax a baax leen nooy leen siyaar comme niñ koy defee rek émission jàmbaarte doxantu fii ci reefan seet si ben ben ndaw bi liggéey lu am solo naka la weer fii ci reefan yaakaar naa li ñu gis ni sax uh, booy xool ñu ci bare bare yaakaaruñu woon ne am na fii ci dëkk bi ñu bëgg a waxtaan ak moom nag ci liggéey bi naka lay doxee dañ lay bàyyi nga présenté wu maas wax yow yaay kan ak bi kañ nga dug ci métier salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Refane maa leen nuyu ñëpp di la nuyu ci àndaar di la jaajeufal di wax ne content na ci émission bi content na ci Refane TV di wax ne bon man maa ngi tudd Massamba Tine dëkk Refane euh, plus précisément Njanjaar di yëngatu ci luñu wax élevage élevage wu xar ñukoy wax laadum donc fi nga nek ni tay mo tuddu bergerie mam Doumbé fay bergerie mam Doumbé fay nek fi ci bon ñu créé entreprise bi comme ni ñu ko depuis 2019 ba léegi ñu ngi yëngatu ci xar plus précisément mooy élevage u laadum kon noonu la demee foofu lañ ci commencé daal. depuis quand nga ci dog ban année. Euh, bon élevage nag mën naa ne bi ma ràññee ba léegi maa ci mais élevage u laadum je crois que maa ngi démarré en 2019 2019 laa commencé élever ay xar quoi laadum. ay xar ngay élever wala am nga ba comme dañ nekk ay bawol bawol nekk euh, reefan féete fi fi daane suñ doole bon mën nañ ne dañu def élevage euh, dañu yar fos dañu yar ginaar dañu yar xar dañu yar tamit béy mais ci laadum bi daal la ñu gën a ëpp doole quoi ci la ñu gën a ëpp lu ñuy yëngatu voilà noonu la demee. naka yaru laadum bi est ce que yomb na fii ndax bu njëkk gis nañ ne donte am na ñu ko doon def reefan mais bariwul fi woon. bon xam nga xar bon yomb na yombul métti na méttiwul. mais comme premièrement moom ni ñu ko waxee mooy bëgg-bëgg bëgg-bëgg bu ak gëm-gëm bëgg-bëgg bu ànd ak euh, toog xaar mais yaru xaar moom ku ne xam na ne métti na parce que <coughs> yar euh, boo ko bëggee def surtout laadum bi te amoo mooy day métti te tamit xaar daa nekk loo xam te vraiment ku yàkkamti mënuñ koo def ku maanaam daal nekk na loo xam te en général métti na. parce que métti nag gi boo ko déggee mooy xar boo xam te ne daanaka ci poos lay dund loolu loo waaye di wax lu dul métti mais day wax lu ko neex mais nag bëgg-bëgg bi gëm-gëm bi daa jiitu loolu lépp te nit ki nag loo bëgg gëm ko la ca ginnaaw da ngay jël sànni ca ginnaaw xam ne man maa ci nekk maa ko bëgg sama patience la sama passion la donc nga nekk ci patiente toog xaar bi nga ci ba dugg ba léegi naka nga ko gisee bon comme ni ma koy gisee bon chaque jour ñu xam ci lu ñu xamul woon mhm. chaque jour ñu def ci lu ñu deful woon chaque jour ñu mën ci lu ñu mënul woon Euh, vraiment boko ko fi ci bergerie mam Doumbé fay xari fi nek yépp mëna né ne partie ci xari fi nek fi liñ judo sen ndey peut être la jëndon bala sen maam mais xari fi nek ni major partie bi boo compté ñaari xar nga fi mëna gën yo yoo te fi mais fi dess yépp xar bo fi gis fi la judo donc lolu amélioration la sant yalla la tamit succès la voilà non la démé am solo comme ni nga ko waxee nga né fi lañ judo est ce que lolu yombon ak naka nga leen mëna produire ba ñu ba ñu fi bon yombul parce que tamit primero fii ci Réfane yaar fi yombul parce que insécurité bi bëri na fi des fois nga dégg ne jël nañu xaru diw mbala jël nañu fasu diw mbala jël nañu nagu diw yooyu yëpp day métti mu nekk loo xam te ni xam nga dañuy sabablu toog xaar bàyyi lépp ak yàlla mais vraiment bi ñuy démarré ku la wax yomboon na day wax lu ko neex ku la wax méttiwul woon tamit day wax lu ko neex métti woon na mais comme suñu bëgg-bëgg la te bi ñu fi nekkee nekk a ndaw gis moroom di ko def ñuy dem ay Thiès ay Tiwaawoon ay dakaar ay Touba di assister ay foire di gis éleveurs yooyu la ñuy dund lañ nekk ñu gëm ne pourquoi pas Refane am ay éleveurs comme ñooñu ci noonu lañ takkoo gëm loolu noonu gëm liggéey boobu noonu gëm ne élevage lépp lu ci nit am mën nañu ko am loolu moo ñu ci dugal vraiment mu nekk liggéey boo xam te yombul mais nag comme ni ma ko waxee ci ginnaaw boo ko gémmee bëgg ko topp ko allah allahu rabbi yàlla mën na la ci may daw te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. ñu ngi ciy débuté ci laadum rek nga dem directement wala jaar nga ci yeneen races yi avant nga ci. bon xam nga élevage mënoo jékki-jékki ak fi gars yi àgg da ngay débuté loo gis lu ne am na ce qu'on appelle débutant bu ñu ci nekk ay débutant bon dañ doon élever ay xar yoo xam te dañuy yar bu tabaskee nu génne dem jaayi jëndaat ay xar toog xaar tabaski ñëwaat voire même des fois ñu ay femelles yoo xam te dañuy produire. pour am ci ay ay ay ay sujets yoo xam te ne ñu préparé pour tabaski déwén ñu mën koo jaay mais élevage wu laadum moom bi ma ko démarré exactement je me rappelle que c' était en 2012 moment boobu noonu laa quitté université ñëw Réfane commencé fi investir di liggéey di jaay quincaillerie di ko ma ne pourquoi pas mu profité ci occasion boobu jéem ma def ce qu'on appelle l' di du laadum te alhamdulilah euh, am na lu ñu ci xam am na lu ñu ci mënti it am na lu ñu ciy gagné. donc noonu la demee vraiment. comme ni nga ko waxee ñu ci bëree bëri gën laa xam ci Kankaayre est-ce que itam ban message ngay lancé ndaw yi pour ñu bañ a yem ci benn métier. bon Thianar bon li nga wax am na solo nit boo nekkee ci dëkk di liggéey di daan sa doole dangay xool lépp loo xam te ne peut-être mën nga ko apporter dëkk ba luy jëmale dëkk bi kanam. nga jéem caa taxaw jëm caa dox. bon bi ñu ñëwee fekk nañu fi suñuy mag ñuy def élevage bon ñu leen di côtoyer ku ci mel ni sëñ Mbacke Ndaw ku ci mel ni Maam Mor Ndaw ku ci mel ni Sëñ Saaliw Thiaw ku ci mel ni Abdou Ndaw Baye Fall ku ci mel ni Jili Caacaw Maam Góor Léeb gaa yëpp ay éleveurs lañu su ma limbee damay juum bon ñu nekk fii ci Réfane di daan seen doole di liggéey xam nga def élevage métier bon bi ñëwee côtoyé leen di leen bàyyi xel de en temps ñu dem ci seen bergerie di visiter. Mhm. du bi ñu demee ci noonu nag ci la ñu xam ne vraiment élevage bi bon amul tànku ginnaaw tànku kanam la am. Mhm. bon ñu jéem top topp ci lancé suñu grand yooyu non voire même xam nga ñu commencé def ay présélection ay sélection di jéem a taqale jën fii jën fee dajale li nga boole dajale li nga am voilà affaire yo finalement ci non lañu accéder ci ci élevage la dum bi quoi naka nga ko mëna bolé ak benen métier bi parce que refa ñi ci ëpp ñëpp ci kànkaay la ñu gëna xam bon xam nga lolu yom na yombul mais àdduna euh, il faut toujours oser de faire oser de faire voir même que peut-être bul yem ci ben métier parce que aduna bo duggee ci ben métier bu lol taxawé nga taxaw té nit ki tant qu'il y a la vie il faut toujours avoir de l'espoir donc ci non la amé espoir que peut-être que ak élevage mën nañ ci am lenen ak élevage mën nañ ci dund lenen ak élevage mën nañ ci tollu fenen benen niveau ci aduna bon ci non lañu ko jéem a bon liggéey bi nak yombul bo xolé man chaque jour bala may xey ci kenkaari bi je ferai mon mieux bo tek xarit ci dans de bonnes conditions voire même à 14 heures suma ma bu julli ma ñëwaat ci xar yi nimeku leen defal leen ngooñ defal leen ndox nimeku leen dal di demaat à 19 heures suma ma je te le jure chaque jour balaa may sang lu mu néew néew néew des na julli géewee te temps boobu bépp dama koy passé ci xar yi te su ma ñëwee defal leen lekk damay toog ak ñoom xool ban xar moo am envie lecté ban xar moo am appétit ban xar moo lekkul ban xar bi lan moo ko daal ci noonu laay defek ñoom famille yi xam nga ñu nekk sama second famille à chaque fois peut-être dama gën a pliante bi mais sama pliante fii laa koy tëgg de temps en temps di dund ak xar comme ñooy sama famille te man su xar yi nekkee jàmm rek je me sens alhamdulilah ko aw ma affaire ci leneen te mooy sama second métier donc ma fonk ko trop bëgg ko trop te mu jaral ma ci tamit lu ne voilà noonu la demee. insécurité bi fii ci Réfane naka lay demee ak naka ngeen koy moytoo. bon xam nga insécurité bi bon loolu c'est une phénomène la boo xam te day ravager Sénégal gépp mais nag euh, ñun li ñu mën ay ndaw lañ di sabablu. te di ñaan yàlla mu musal ci insécurité boobu noonu donte donte mu ngi fi bon sonal nañu solo ñu parce que de temps en temps da ngay dégg ci village yi ñu weer ñu naan jël nañu xaru diw jël nañu gu diw jël nañu fasu diw mais weer alhamdulilah ñun dañ koy dégg comme wooy mais mosuñu ko dun ñun mais suñu nit ñu ngi koy dund suñuy xarit ñu ngi koy dund mu nekk loo xam te ne vraiment dañ ci lancé appel état bi mu jàpp ci jàppale ñu te xam ne ñun ay ndaw lañu dañ toog fii ci suñu dëkk di fi liggéey di fi daan suñ doolee gëm ne li ñu mën am suba fii lañ ko war a liggéey di ci élevage donc vraiment insécurité boobu noonu dañuy ñaan à ce que état mu aidé ñu pour vraiment améliorer ñu accompagner ci liñ nekk nii bu nga xam ne bépp sambaaboy bu ñu jàpp ngay jël alalu jàmbur ci xaar ak ci bu mu mën doon yoon def la ca war parce que ndaw da ngay liggéey ndaw dangay ngay sa bopp ndaw da ngay ne ci li nga war li nga war a nekk la ca des nga bàyyi kook yàlla te gaawtu baaxul yàkkamti baaxul aduna lo xaar mu fekk la fa mais lo xaar du la fekk ci loolu lañu nekk daal na solo naka ngeen di doxé ci foire yi parce que ñakul ni <clears throat> ngeen am fu ngeen di mu xam lu ma lañ koy tuddee seen mi ci xam hmm. xam fi ici à Réfan on a ben groupe whatsapp bo xam te ça parle sur l'élevage entier mais plus précisément ci man ci élevage la dum la gën spécialisé wu bon groupe bi mu ngi wax les éleveurs de la commune de Réfan en parlant commune de Réfan mënoo ci ci Nous sommes ci ainsi de suite ainsi de suite ñun ñoo ci nekk Nous euh, élevage bi kenn ku Nous na ñu lay nangul fa nga pigeon yi Nous yi dans tout ça xam euh, élevage lañ wax mais ñun ñu ngi yëngatu ci groupe vraiment appel sama yi ci même ko gëm ko xam que peut-être les foires qu'on entend dans les villes ailleurs comme Thiès Dakar Touba ñooñu peut-être euh, ci noonu la ñu commencé te bon bañ wañ boo gis ci benn lay tàmbalee ñu gëm suñu élevage dooleel ko xam ne li koy li tas ci àdduna ba ñu mën a dégg élevage u éleveur u Réfane vraiment ñun ñoo koy liggéey ñun ñoo koy sàkku ñun ñoo ci ñoo ci ñoo ciy dox ñoo ciy wax ñoo koy defaral suñu bopp voilà noonu la demee. côté foire yi. côté foire yi ba man nag euh, yàlla dogal na. mosuma dem exposé ci foire mais chaque foire bu amee comme Réit bu Thiès comme Annette bu Touba comme xam nga Saladel ainsi de suite foire yi am Sénégal de temps en temps bu Louga Tiwaawoon Thiès Touba Mbour yooyu yëpp damay taal sama moto dem assister ci benn arrêté benn jour sama liggéey dem ci foire yi pour découvrir lan mooy foir lan mooy laadum xam nga xool xar bi lan la mëne bi xar bi lan la ëpple bi bii xar fan la bokk kan mooy papaam kan mooy yaayam kan mooy maamam au fur et à mesure que ngay dajeeg éleveurs yu mag yi bon ci ngay gën a amee ay ay ay relation entre éleveur relation entre humain relation entre nit ak nitam bon vraiment élevage mu nekk loo xam te nii tey day boole mais mënu tàggale mënuma la wax tey ñaata nit laa xam ci Sénégal te xar moo ñu boole mun na am sax suñu gisee mais ñu ngi déggante muy nice bu baax a baax a baax. lan la la yokk ci sa métier. xam nga tey loolu li ma yokk bëri na parce que su ma nekkee reefaan yor samay xar. te gënuma dem découvrir beneen xaar peut-être damay jàpp ne sama xaar moo fi mën mais saa yoo génnee di nga gis xaar bu mën sa xaar di gis xaar bu dax sa xaar di nga xaar bu ople sa xaar lii sa xaar ople mën ko fii mu mën la fii au fur et à ngay collecter connaissance boobu bépp ci ngay gën a mën a sélectionner yow boo ñëwee nga mën a xam yow ci ban ligne nga war a liggéey ci ban ligne nga war a travailler parce que xaar yi bu la ci kenn nax xaar yi li ñu bëri bëri xaar bu nekk am na fu mu bokk dinaa ko décortiquer ci kanam nekkul ko ne xar yi da nga leen gis nii rek mais xar bu nekk dina wax papaam wax la yaayam wax la maamam wax la mamaatam fi mu bokk. Mhm. voilà te xar yi euh, li lay dimbal pour sa liggéey mën a avancer. vraiment bokk na ci xaru laadum nga xam xar bi fan la bokk. Mhm. voilà noonu la ah, demee. naka ngeen di xamee loolu ñëwal ñu ci loolu nga leeral ñu comme laadum yéen. nga xar mm, niñ ko waxee xaru laadum day am ce qu'on appelle pédigré pédigré mooy kan moo ko jur. premièrement kan moo ko jur. Mhm. ki ko jur kan moo ko jur. ka jur ka ko jur kan moo ko jur. voilà soo demee nag bu am accès ci loolu noonu ci ngay xamee ne xar bi même boo gisee xar te xamoo kan mooy borom soo gisee xar mun nga kitaabu ne xar bi doomu diw la li la koy may mooy da am connaissance ci papaam am connaissance ci mamaam am connaissance ci xar yi nekk Sénégal tey man xar yi li ñu bëri bëri bëri na xar yoo xam ne saa yu ma leen gisee su ma xamul seen papa mën naa xam seen maam parce que vraiment xar yi bëri na mais bokkul xar yu nekk daa lu ñu leen spécialisé voilà noonu la demee. xar yi ci laadum yow à peu près ñaata kii nga yor fii bu ñu moo koon xam ci xayma ñaata laadum nga jot a yor fii. bon su may tontu question boobu peut-être euh, tet yi fi nekk moom bëri na mais la majeure partie wax naa la ko ci ginnaaw ko fi leen juddoo te ñaari xar laal fi mën a sital yu fi juddoowul man booy grand femelle be ak euh, mal adulte be rek moo fi nekk ay nouveau recrue mais au delà de ça moom xar yi fi nekk yëpp fi leen juddoo sen yaay peut être fi leen non seen Apa ñi ma jëndoon jaay naa leen voilà la peu près ci ni ngeen ko euh, gaaw na wala yéex na comme ñi ñuy juddoo ak ni ñuy mag. Euh, bon xam nga xar bu la yàlla dimbalee te yàkkamti woo vraiment production bi gaaw na parce que boo xar yi xar bu ci nekk euh, at bu ne juro, na jur su la yàlla dimbalee xar yi jur te ben amu ci problème benn deewu ci. vraiment ñaari at rek bu la yàlla jàppale te bi ngay jën xar nga jën xar bu baax bi ngay jën xar naxuñu la bi ngay jën xar utoo lu yomb dem nangoo investir sa xaalis gën xaalis jën xar bu baax toog xaar ànd ak patience vraiment yàlla mun na la suturaal nga am résultat bu extraordinaire te alhamdulilah yàlla mën na jàppale ci coté boobu noonu. voilà ci côté ngooñ beeg repas bi élément bi naka ngeen di def boo mën leen ci dundal ndax ku ne xam ne jamono léegi métti ak seeraay. bon lu métti lu métti la. comme suñu bëgg-bëgg la lu métti métti dañ koy xaar mais vraiment xar yi ngay gis fii nii en réalité su ma la waxee dégg chaque jour lu mu neew neew neew mën nañ lekk sama 10 000 francs mais 10 000 francs boobu noonu tey ma yor ko sama poos jox leen ko moo ma gënal ma yor ko sama poos garder ko parce que ñii man maa leen ub fii man maa leen fi téye mën ñu gën dem fenn kon seen ration obligatoirement dama leen ko war a jox ngooñ bi ku ne xam ne saaku ngooñ bu yombee ba yomb 4 000 francs la voire même mën na Euh, saako super cinq 12500 saako élément jaar nga mille saako olam waxuñu ko kon yooyu vraiment te ci loolu la xar yi nekk. kon message ngay profité lancer ci euh, autorité yi. Euh, bon dañuy profité ci occasion bi di ci lancer autorité yi ñu jàppale ñun jeunes éleveurs yi ñu jàppale éleveurs yu Sénégal te xam ne ndaw amul lu dul dekkam ndaw amul lu dul fa mu bokk ndaw amul lu dul la mu nekk bon ñu jàppale ñu ci ngooñ bi. duñu jàppale ci ngooñ bi dañu jàppale béykat bi parce que béykat bi mooy béy pour ngooñ mën a am élément bi tamit ñu jàppale entreprise yi koy liggéey bañu wàññi taxe yi wàññi tamit xam nga liñ leen di teg su ko defee bu yombee fa ñoom rek bu agsee fi ñun dina yomb mais vraiment tey booy atte ñaar ñuy xeex kii doore nga naan bàyyil ki ngay door mbala nga ne ko muñal ko mbala wàññil door yi mais soo bëggee ne baal ki ngay kii boo naan kii muñal te kay doore ne woo ko bàyyil doore yi du sotti donc vraiment noonu la demee am na solo comme ni nga ko waxee est-ce que itam mën nañoo xam laado mi à peu près at la ñuy am pour nga mën a sa xel gën ci daal daal. bon xam nga xar yi xar dure de vie am takkuwul fenn parce que boo xoolee ku ci mel ni Saalum Saalum minimum dina 10 ans mais ça dépend ci yow éleveur bi ni ngay gérer sa xar yow éleveur bi ni ngay gérer sa maal parce que xar euh, dee su ko chargé te xar yi nga gis yëpp dañuy dund naturellement man suma xar ngooñ laay def. Euh, ndoxu neen la ñuy naan si perlaadum lay xonte bala ma jël kooraay bi def ci élément jaar ga ak olam jaxas defal leen des fois am accompagné ci ak mboq mu nekk loo xam te vraiment dun bu naturel la te xar yi ngay gis ni yëpp amul benn vétérinaire bu la mën ne kermaas ba ma fa géejee op na ñaari at man sama kër ba fi vétérinaire géejee op na ñaari at parce que samay xar maa leen di xool di leen jéem a teg ci bonne condition fi ñu nekk nay set fi ñu nekk na am aération fi ñu nekk euh, bu mu tàng ngay top to bu tilimé nga sang bu tilimé nga soxi déguisé et tout ça yoy soko défé vraiment et tok xaar yalla mën na la dimbal sab xaar du am ben problème la ji bo tudé réfal ak banat mo fi amat ci wa xam fi bergerie bi diñu am euh, ñaari mal yu ñuy liggéeyé tay amna mal ñu wax dina bax dina bax euh, mu ngi ci biir amna tamit jeune mal bi fi nek euh, man ko tudé refan di profito di len noy wa refan tv ñep di wax ne am ngeen tourando fi ci bergerie mam dumbe fay ñuko wax refan Réfane mu ngi fi ci kanam dinaa la ko génneel présenté la xar yi wax la xar bi kan moo ko jur fan la bokk kan mooy papaam kan mooy maamam vraiment mu ngi noonu mais fii ci bergerie Mame Ndoumbé Faye daal am nañ fi ñaari maal yu ñuy liggéeye ñaari maal yooyu daal actuellement ñoom ñoo fi nekk mais au delà de ça am na maal bu fi jaar bu jàll def liggéey bu mucc ayib ñu koy wax Laye Ndiaye junior Laye Ndiaye junior boobu vraiment barkeel na bi mu fi jaaree parce que mooy sama premier recul ci maal en tant que laadum mm-hmm. maal boobu tey am nay doom Réfane Mhm. te majeure partie famille yi ngay gis fii moom moo ko fi bàyyi voilà muy noonu. am na solo ban message ngay lancé ñu tëjee ci wala ñu doxantoo nga présenté ñu raasi euh, pardon. ban message ngay lancé pour sa mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci éleveur bi moo xam Réfane wala partout la bon sama message bi may envoyé sama mbokku éleveurs yi di leen wax nu jàpp te toog xaar te bañ yàkkamti parce que euh, laadum àndul ak yàkkamti laadum àndul ak euh, àndul ak tamit nuñ ma ko mën a expliquer àndut bëgg-bëgg yu bari parce que xaar yi ngay gis nii nii nii man maa leen gérer man ak sama tool ma maas ma koy nuyu bu baax a baax kenn mënu ko ci bergerie bi su ma fi nekkul mooy gérer su ma fi nekkul moo ciy jàpp di profito di nuyu sama gars yi ci réefan ñëpp di yëngatu ci laadum comme sëñ sali Thiaw Abdou Ndaw Baye Fall gaa yooyu noonu su ma limbee damay juum ñoom Mamor Ndam ñoom sëñ Mbàkke Ndaw ñu nekk ay gars yoo xam te vraiment kenn mënu leen ci laadum voilà noonu la demee nañ jàpp daal te incha allah rabbi dina baax Mm-hmm. lan nga am loo xam ne laajuma la ko te nga bëggoon ci ñëw. bon loo xam ne laajoo ma ma bëggoon ci ñëw bon loolu mën naa ne euh, presque say question maintenant la lépp mais nag li duuf ci cin li xejul li duuf ci nag bi xejul ci cin li euh, li may lancé daal mooy sama gars yi nañ jàpp. te dooleel éleveur su reefan mm-hmm. te gëm na reefan mën na am éleveur bu ne te gëm na xar yi ngay dégg ci biti ñu leen di soow yëpp mën na am reefan gëm-gëm ma koy maye toog xaar liggéey ak def sélection bu muc ayib voilà noonu la demee. Mhm, jaajëf jaajëf jaajëf ñu ngi koy jaajëfal kooku Mass la woon ñu amoon ko tey émission jàmbaar di encouragé ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci métier mi mu nekk di wax nag yombul ñu gën leen ci jàppale moo xam autorité yi wala état ñu ngi ci tàllal ñëpp loxo jaa ngeen jëf ci kanam émission jàmbaar la woon fii ci Refane